dama am programme de sept points programme bi mooy bi ko bi ko commencé mooy nouvelle gouvernance nouvelle politique marketing les infrastructures politique de développement le football féminin l'accord quadripartite fédération collectivité locale état et boo jëlee nouvelle gouvernance ma ne si nouvelle gouvernance bi dina andi directeur wala directrice général ma ne dinañ changer texte yi dinañu publier compte yi donc point boobu réglé nañ ko si quatre ans yi ñu dem nouvelle politique marketing ma ne benn mayo boo xam ne tey buñ ko jaayee jaay ko à dix mille francs si un million de sénégalais mën nañ ci am dix milliards ma ne une quoi soixante dix huit mille sociétés la buñ leen laajee cent mille dinañ sa am sept milliards huit cent millions. xam nañu nag dañu nekk si période de pandémie il faut pas que aussi may jaay rêve mais si point boobu ñun xam nañu que deux milliards cent vingt huit millions soxla pour fonctionnement donc bu fekkee am nañu six milliards sept milliards mën nañu régler suñu suñu suñu football. donc si quatre ans yi laaj na ma nouvelle gouvernance réglé naa la ko nouvelle politique réglé naa la ko ñu wax infrastructure yi muy la mission régalienne de l'État loolu. il faudra que ñu pousse état bi pour que mu defal ay stade norme internationale te am naa yaakaar bu yàlla defee ñu gagné coupe d'Afrique parce que président Macky Sall luñ ko mënte waxal il a la volonté de bien faire pour que suñu football dem kanam donc wax naa la nouvelle gouvernance nouvelle politique def naa la infrastructure bu ñu demee si politique de développement ma ne la que dañu war a ériger une académie à Kédougou mais académie boobu mënugul nekk parce que il faut am chercher des fonds mais am na ñu Guéréo am nañu tubaab Dialaw boobaa nañ commencé def des pôles de développement pour que xale yi ñëw ñu commencé leen jàngat foofu donc réglé naa politique de développement bi. club yi ma ne leen dama leen jox ku nekk benn bis mais loolu munuma ko def si quatre ans yi c'est impossible mais dinaa jënd minimum entre trente à cinquante bus yóbbu ko ci ligi ñu xool club boo xam ne mooy déplacer distance bu rëy. ñu ne ko yow yaay utiliser bus boobu du lundi au vendredi buñ ko defee aussi mooy que dina am xaalis boo xam ne liggéey dinañ ko am boobu waa ñu partagé ak club yi donc règlement pour développement ñu dem si football féminin si football féminin bi tey club yi fa nekk war nañu def catégorisation bi parce que am na programme boo xam ne FIFA teg na ko pour le football féminin implication des femmes dans des centres de décision donc règlement football féminin ñu dem léegi wax accord quadripartite andiwaat le football à l'école mooy UAC loolu soxluwul moyen bu rëy avec le pro le programme Forward mën nañ ko tax am ko am ay terrain stabilisé léegi ñu dem ci politique sociale ñu ne mécanisme solidarité bi indemnité ak indemnité de formation ak transfert il faut ko bu boobaa club bi seen wàllu bopp ñooy décider. ku si transféré ñu jël benn somme yóbbu ko dans la caisse de solidarité donc ba pare ma boole ko si yokk si internationaux yi donc ma ne am naa yaakaar si sama quatre ans sept points yooyu mën na nekk parce que bu nekkuloon du ma leen ko wax moo tax ma la j'ai un programme réaliste et réalisable léegi nag may lancer un appel à tout le peuple sénégalais non à la violence du dëgg falu yàlla ko yor tey bu ñu xoolee sondage bi quatre vingt quinze pour cent de la population dañu bëgg a ma jiite football sénégalais li may ñaan nag su fekkee nag élire nañ ma yàlla bu ma décevoir le peuple sénégalais parce que sans le peuple sénégalais nu sommes rien du tout te man li ma wax mooy lii que le ballon day rassembler ballon du diviser vive la paix au Sénégal et vive la République j'espère que. waaw xam na programme Augustin comme li ma la wax moom laa leen waxaat Augustin tey li ma xaar si moom ba ma annoncé sama candidature le 4 janvier man ma waroon jël programme Augustin xool lu ma si jël ma def ko mais Augustin tey li mu wax yëpp si 10 points yi génne naa ko bien avant du dëgg pour man. programme am c'est un programme bidon parce que munoo toog nga xam ne depuis le 4 janvier yow comme que moom si xalaatam xamoon na ni day nekk candidat kon waroon na préparer candidature am parce que moom peut-être dafa yaakaar c'est comme il est à la poste man nekk naa vice-président CAF nekk naa tey am naa casquette bu bëri soxlawul may def programme mais boo respecter euh, euh, les acteurs boo respecter ce peuple parce que c'est le peuple qui a conduit Augustin à la tête de la confédération africaine de football jàppale ko pour mu nekk président euh, CAF te man bokkoon naa si. du rëgg xam na tey ku dem ba jàppale Augustin yi jàmm rek laa ko yónnee mais nag il faut que nous soyons sérieux mën na ne Augustin sama conseil juridique la aw ma benn problème ak Augustin su taxawoon fii dañuy footi ree mën nañu nekk xarit mais nous avons pas la la même vision du rëgg en tout cas man li ma wax ak li ma ñor. mooy am naa programme qui est réaliste et réalisable qui a été bien travaillé occasion la tey ma remercier sama équipe remercier sama rakk Iyaan remercier sama doomu ndey sama frère sama lépp la parce que équipe la Thierno kan su may lim sax may jum c'est un ensemble aujourd'hui programme bi du Madji Touré moo ko liggéey ku nekk dafa andi xam-xamam moo tax tey programme nekk réaliste et réalisable te li ma def si programme bi noonu laa nar a def ak acteur du football pour nekk da siy wax yéen journalistes yi sax bu boobaa naa leen oo ne leen lu seen jàngat pour que on est un pays fort nous avons besoin de vous prenons à titre d'exemple le Brésil parce que le Brésil aujourd'hui a une presse sportive très forte te yéen boo leen ko defee fii incha allah club yëpp nañ jëm si kanam mais sànq bi suñ ko jaaralee ci am ay soupçon am am na soupçon am na parce que 2013 ba ba dañ ma gagné parce que dara musul leer si élection yi moo tax on parle de révision des textes boo xoolee aujourd'hui aujourd'hui club président club yëpp yoo xam ne ñooy président ligue ils ont trois à huit clubs donc peut-être sànq waxuma ko si français commencé nañu wax ni beach soccer dafa war a dafa war a voter or que beach soccer sur l'article 22 benn voix la donc anomalie bi am noonu bu ñu taal suñu réew parce que consensus yi comme li ko may may waxee consensus moom rey Samba Sarr donc consensus bu mu rey benn benn benn sénégalais ñaaw na ñuy gis ni football moo rey nit parce que football paix la li may ñaan daal comme li may wax non à la violence accord de ballon bu ñu unir doy na sëkk pour le renouveau du football sénégalais wasalaam